man je pense que di ñuy dem deuxième tour d'abord et que ñeneen ñoo war a ñoo jàppale ñu te ñu ngi leen di ko tàllal sunu loxo ñoom ñëpp ñoo jàppale ñu ñu fal Mamadou Lamine Diallo maintenant bu yàlla defoon tamit ñun ñu war a am ñu ñuy àndal euh, Mamadou Lamine Diallo ñëpp xam nañ ko opposant la si opposition bi la ma sa nekk yàgg na ci donc si si li ma njott moo di moom xam naa ne kon si boor boobu lañ ko war a gën a séentu mais loolu sama wax la du waxu la Lamine Diallo pour le moment du waxu coalition bi mais bu jotee ba boobaa ñëpp luñ si war a wax dinañ ko wax mais si loolu laa gën a yaakaar ndax moom ñëpp xam nañ ko si dëkku ak nu muy doxale donc euh, loolu daal laa fi gis.